bismillah ay dara jërëjëf tafsir Abdourahmane kon nag ñu ngi woon ci xër ba daanaka tëj nañu bunt boobu a dugg ci lan doylu ah tafsir xër xër baaxul waaye xër nag contraire bi boo defee contraire bi li ngay am mooy lan doylu gis nga waaje dafa ñëwoon ne dafa xam nga dafa am ñoo xam dañoo gent. am ñoo xam dañuy taxaw di naan gént dañu mm-hmm. gént fekk mm-hmm. na yoo mu ñëw nii dafa gént yéeg ci kaw gëléem mm-hmm. ki mu koy wax kooku ne ko ah loolu de daraja bu foor la loolu tur bu bari la loolu daal teraanga bu bëree bëri bëri bëri tur la bu kawe kawe kawe kawe waa ji au mu yem ca waaye comme dafa xër mu ne ko te li nga ci xamul mu ne ko ah mu ne ko dama yéeg toog ci kaw boos bi mu ne ko déedéet xanaa doo ma ne yéeg nga ci boos bi de mu ne ko dama yéeg ci kaw boos bi mu ne ko ah bu dee nag da nga ci kaw boos bi loolu moom dee la vingt quatre heures moo la dese pour nga dee mu ne mais dama yéeg rek wàccaat nga ci xërërëri kajoor nag am lu mu wax tafsir kajoor nee na ku xeebul sa nguur di buur ku xeebul sa nguur di buur ku xeebul la nga am doyloo li la yàlla may billaahi doo xool kenn doo ñee kenn xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ay jàngale yu bari ci moom bu ngeen di jàngale dangeen di naan yonent bi daan na toog ñetti fan cin du tàkk këram ñetti weer ñetti weer weer ñaari weer ñu ne ñaari weer cin du tàkk këram man ma dégg fee Cheikh Sidil Hadj Malick mu mën a jàng bi ne yonent bi wa kaana aghna naasi moo gënoon riche ci nit ñi mhm. moo gënoon riche ci nit ñi naka lañ koy waxee fii ñu ne fii daan na toog ñaari weer ñetti weer cin du tàkk këram mhm. xam nga ni xam nga ni xaw na dina jiixi jaaxe bopp mhm, ñu ne waa naka la riche woon parce que yonent bi euh, moom la ma Chérif Mahmoud di wax Chérif ma ne ko ay ñaanal ma yàlla ma am ay milliards ndax nag wax dëgg yàlla shérif bëgg naa am ay milliards mën cee xettali jàmm yàlla dimbali ci yàmmu yàlla mu ne ma yow sa maama tooñ mu ne yonent bee ko ñaanoon moo ne allahumma ahyini miskinan wa amit ni miskinan yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma dundal ci miskin bu ma amul toog muñ su ma amee sant yàlla lu waay am ma yéene ko ko te nag boo ñuy deew rey tamit nga rey ñu tamit ci miskin ñu bañ a am am ndax nit ku nekk bala ngay jéggi siraat alal boo am dañ la laaj foo ko jëlee ak foo ko dugal bëri na koo xamante ni dafa liggéey liggéey boo xam ne dafa yenu di root di def lu ne dajale alalam mu lew ñëw yomal xiyam mhm. ñu di ko lijjanti mën na fa toog juróom-ñaar fukki at ñu toog rek ci di ko lijjanti ci alal bi fu mu ko jëlee fu mu ko jëlee dugal rawatina ki nga xamante ne nag dafa am loo xamante ni lewul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa lu tax ñu ne dafa richoon ñu ne c'est parce que dafa doylu woon doylu gu mu doylu woon loolu moo defoon richesse am moo tax boo déggee muy wax bu ngeen di takk takk leen jabar ju riche am xel yu bari yu dem ci ku am koom bu bari mu ne déedéet du loolu mooy richesse ñu ne ko lan mooy richesse mu ne mooy jigéen ju doylu jigéen ju doylu rek jàppal ne jabar ju riche la kon nag yonent bi wa kaana aghna naas boobu ñu leen wax richesse boobu du ay immeuble yu mu yoroon du ay compte bancaire yu bëri yu mu yoroon waaye doylu la amoon moo tax kajoor ne kon ku ku xeebul sa nguur di buur tafsir abdourahman lu ñuy indil ci alqanaatu euh, alqanaatu kanzun la yafna shérif mm-hmm. fa tabaarakallaahu yal nañ la yàlla fayal yàlla fayal ñu sa maam xam nga sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mm-hmm. nee na doylu mm. magasin la compte la boo xam ne du wàcc mukk xam nga ñun suñu compte yi day wàcc léeg-léeg nga am cent mille francs sa compte mm-hmm. léeg-léeg nga ñëw des gis mu des cinquante mille mm-hmm. léeg-léeg nga bind benn chèque dem ca compte ba ñu ne amul xaalis mhm. léeg-léeg nga génn am benn xéewal mu yéeg dem cent cinquante mhm. day yéeg ak di wàcc mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ku ci bëgg am compte bu dul wàcc ba mukk ñu ne ah ya rasulallah mu ni fexeel ba am li ñu tuddee alqanaa mooy doylu ci wàllu alal nga doylu jaamu yàlla du eh, eh, jullit du doyal jaamu yàlla waaye jullit du xeeb wërsëg shérif boo xoolee wa in tauddu niamatallahi laa tuxsuha suñu borom subhanahu wa taala nee na xéewal yi defal bu ngeen ko doon wàññi naan yàlla defal na ma nangam man tafsir defal ma nangam defal ma nangam nga bëgg am chiffre bi nu toll suñu borom subhanahu wa taala nee na doo xam nu mu toll est ce que ja est ce que jaab bi mën na fay yàlla teraa ngay bët est ce que jaam mën na fay yàlla nañu teg fële teraa ngay mais est ce que jaam bi mën na fay yàlla teraa ngay pourtant am na koo xamante ni yéen ñaara juddoondoo mhm. yéen a yaroondoo yéen a màggandoo léeg-léeg sax ay wayjuram gën say wayjur mhm. léeg-léeg sax moom ci boppam mu gën la mhm. am na nopp yu toll ni yi nga am baa yu ëpp yi nga am mais suñu borom deful ci moom muy dégg léeg-léeg mu am koo xam ni am na bët yi nga am waaye suñu borom deful ci moom muy gis waaw kon boo xoolee ci li la yàlla defal day dellu si ci waxu mam Seydi Aji Malick radiyallahu taala anhu bi ma la wax bërki démb ci émission koor bi muy ala farda maa yaqdi ilaahu bi mulkihi lu yàlla dogal ci yow lu la yàlla jox rek na la doy subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi koy wax léegi yamurru sha'run aw sha'raani min zamanin walam tara al aynu fi l abyaati min hadami sallallahu alayhi wa sallam sa maam Seydi Aji Malik mi xam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne sa sa maam rasulillahi daan na toog weer wala ñaari weer bët du gis cin lu takk kër yonent bi ngir ñàkk dépense sallallahu alayhi wa sallam Seydi Malick nee na lahu salaasuuna yawman maa yazuuqu siwa maa kaana ibtu bilaalin damma min toami sallallahu alayhi wa sallam daan na toog moom yonent bi weeru yàlla du lekk lu dul tàndarma joo xam ne bilaa la ko for def ko ci puqutaanam indi jox ko da day xëy ni soxna si moome ndax ndékki am na kooku ni ko ndékki amul mu ne ko kon woor naa ñu koy wàññi di ko wàññi muy woor wooru naafila ba mu am un boo xam ne ñàkk ndékki moo waral yonent bi di woor loolu moo waral téeri fiq yi nii bu fekkente ni kooru naafila la man ngaa xëy naanoo kafe naanoo ndox di lijjanti ndékki amoo ko ba midi nga ni kon naa continuer woor te boo wooree di nga am koor mais ñu ni bu dee kooru farata nag bu jant bi xësee bu fajar xësee xar te yéene woo ko mënoo woor su boobaa même boo xamee ni weer wi feeñoon na da ngay jàpp rek donte lekkoo naanoo comme yéene woo ba fajar xar jàpp rek ngay def mais bis boobu bu koor gi passé da nga koy fay ñu ni fu ñu sukkandiku ñu ni comme rasulillah yi ngi xëy di laaj ndékki hmm. kon yéenewul woon woor waaye ba mu laajee ñu ni ko ndékki amul mu woor hmm. kon mooy wane ni koor mën na caa nekk te xoolal ak loolu yëpp nga xool doy loom hmm. sallallahu alayhi wa sallam ci àdduna nabi ku doylu ci àdduna la waaye wul doyluwul àllaaxira suñu boroom nee na ko ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر بالنا لا بكاري جك بكاري موج لو ديف داكورنا اك ياو بالنا لا ليغا جوتا ديف تي ديفول دارا بالنا لا ليغي بغا ديف بالنا لا ليغا نيك ديكو ديف يا رسول الله مي يونت بي صلى الله عليه وسلم عائشه نينا دا دان جولي با تانكي نيوي موتا محمد البصير نان ظلمت سنه من احيا الظلام الى ان استكت قدماه الدر من ورم دي جولي باتانك ياي نيوي يا عائشه نينا داماي جيكي بامو ياغ مانيكو يا رسول الله ياو يالا جيغل نانا لي جيكك لي موجو يالا نينا ولا سوف يعطيك ربك فترضى آه. الله دينا لا جوخ باغا كونتان يالا نينا ولا الاخره خير لك من الاولى الاخره موي داك تي ادنا وا لو ورال جولي با دي نيوي دي غاني سا مونيكو افلا اكون عبدا شكورا مو ندخ دوما دون جامبوي سانت يالا يالا ديفال مالوم ديفالول dinaa ko defal lu ko kenn musul defal mooy jullil ko ba samay tànk néewi alqanaa doylu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak loolu yëpp nag dafa doylu woon ci àdduna xam nga shérif foo koy jànge mooy nabi ñett ñaari weer fanweeri fan cin du tàkk këram ngir ñàkk dépense te terewul وراودته الجبال سم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زؤده فيها ضرورة إن الضرورة لا تعدو على العصم دير عندك جاي رمب مونتاج مم صلى الله عليه وسلم مونتاج بنيوكو نخ مونتاج دنكو دان نيو نكو السلام عليك يا رسول الله نبي ديلو مونتاج بنيو محمد البسير وين يتالي نيب دي ديغ مونتاج بي وخ يونتي بي دي وخ مونتاج بي نكو دما بغون تان يورو دارا nga ñaan yalla mu def ma wurus wala mu def ma oor wala mu def ma jamaa boo ko defee nga jël ma jëriñoo ma ndax nga am dara ci sa compte yow rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom a ngi dégg jibril ni cëpp ni ko inna rabbaka yaqrawuka salaam yàllaa ngi lay nuyu yàlla nee na dégg na li montagne bi wax nee na boo bëggee mu defal la ko waaye nabi day bañ ni ko neel yàlla na ma bàyyi àdduna rek ma ñàkk lu ma am jël lu ma amul muñ ko mm-hmm. waaye jarul muy soppi benn montagne jibril ni ko lu muniko alakhir ko préparé mu ne ko dina neex na fi neex fële dina neex muniko upp na def bayil ma nek ni ci aduna diko ñakante rek na dajali lépp bu alakhir nak lum ma fa jox rek bëgg na ndax bu ko tegee ci sama loxu ma sédélé ko jaam yi nga xamni dañu ne ci ay jafe-jafe su boba ndax ñëpp dem aljanna motax tax doylu kanzun trésor la bo xamni la yefna du jeex yow mbok mi sétane ces émissions bi di seen sukuru koor bo bëgge am jàmm lu yàlla jox na la doy parce que bo doy lu wul mano fexe fexe bala yàlla bind mu jëm ci shérif mami mi nga jot ci xanaa xamoo shérif kii carte bay gañe dafa yàqamti rek waye bu téy yoon lola mu gañe wërsegum la day ñëw fa tabarakallah ndax suñu borom bind na wërsëgu jaam yi avant muy bind jami kon nak yàlla ñu yàlla defal wërsëg ndax wërsëg it nag baax na bi sallallahu alayhi wasallam dañi am naño xamni bu len yàlla defalé wërsëg ñu wéddi yalla mais amna ño xamné buñu ne hmm. wéddi yalla anas bun malik ni ko ñaanal ma ma bokk ci ñi am wërseuk ba paré gëm yalla yalla nañ yalla defal wërseuk yal ko defal yaa motax tafsir hmm. sa soppé ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam néna hmm. utlubul bi izzi nafsi nee na looy wutati di sakku néna wut ko ci dignité ndax jaam bala ngay gis lam pire mun am bëgg-bëgg ci lay woné ab lam mu ne waaye lépp looy wut da nga koo war a wut ci dignité ndax dafa am jaam bu jaam gën ndax jaam boo xamante ni boo xamante ni yemale na ay bëgg bam jaam boobu moom sang lu ñu xam jaam sanga ma ko moom waaye jaam boo xamante ni bëgg bëggam gënal na ko lu ne kon lu ñëw rek fëkk